ñi jëm ca saako ya saako yi wax naa ne fekkewul kenn ku ci ne yaa saako yi ah sey ah, Seye sànni na léegi Alioune Seye junior Jibi fay Alioune sey sànni na ah, Jibi Faye sànni na Jibi euh, Jibi Faye sànniwaat na gauche droite ah, sànni na sànniwaat nañu ñoom ñaar Jibi Faye Alioune Seye junior Alioune Seye junior Jibi Faye man xale yi xaw ma tax man téente ay loxo kenn deful dara Alioune sey sànni na léegi Jibi fay sànni na Alioune Seye ak Jibi Faye Alioune Seye senior Jibi Faye xale yi xawma lu tax dootuñu song léegi Alioune Seye ah Alioune Seye song na ko jël na tànk ba mais tànk ba rëcc na léegi nag téye na ko ñoom ñaar mu ngay wuti giño a ah, ndax dina jàpp jàpp na jàpp na mu ngay door suuf mu ngay door ca suuf Alioune Seye Junior ak euh, Djibi Faye Alioune Seye Junior Djibi Faye ak nañu nag léegi ca saako ya a doon na ko kal léegi mu bañ a jéggi na saako ya jéggi na saako ya ñoom ñaar Euh, Jibi Faye sànni na léegi Alioune Seye junior Jibi fay Jibi Faye sànniwaat na Alioune Seye gëdd ko léegi mel ni kuy dem euh, euh, Alioune Seye sànni na Alioune Seye Jibi Faye sànni na sànniwaat na Jibi Faye Alioune Seye junior Alioune Seye jël na tànk ba jël na tànk ba léegi jël na tànk ba est-ce que da koy yëkkati jël na tànk ba est-ce que xar gëppal na ko léegi xar gëppal na ko war na ko ndomba léegi war na ko ndomba léegi war na ko ndomba léegi mu ko jëmee ca biir géew ba ah, lu ah, lu arbitre yox lu arbitre yox lu arbitre lan la arbitre yox lan la arbitre yi wax ah, foofu fii bu fi làmb tolloo arbitre bi rek moo ci am kàddu arbitre bi yëkkati na loxo Alioune Seye Junior arbitre bi yëkkati na loxo Alioune Seye Junior Alioune Seye Alioune Seye Alioune Seye bi yow la di gërëm Asumaare Asumaare Asumaare mënu ma koo fay ngoone loo ñu sama gaay yëpp waa Firlife waaw ah, ma nga nan ma jox samay morom léegi combat bi dox ci diggante Jokal ak Lam Sané Kokel ah, mi ngi ngemboo ngembalu vert Langsane ngemboo ngembalu chocolat ndeysaan dégg loolu <laughs> nga xam ne damay wax Langsane sànni na léegi ñu ngi taxaw jonn ñoom ñaar ñu ngi taxaw jonn ñoom ñaar Jokal léegi ku ne tee nga nag léegi ah Jokal sol na ko solu ndi joor ah daf ko sol solu ndi joor mi ngi koy puus mi ngi koy puus Jokal Lang Sané Junior Jokkel ak Lang Sané numéro bu école de bu Lang ñoom ñaar lu fo nañ jóg léegi Jokkel Jokkel door na ko pour mu sigi ñu koy ñoom ñaar takkoo nañ ca kaw ñoom ñaar ah, Lang Sané ak Jokkel a ah, ardo léegi ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar diggante Jokkel ak ki nga xam ne mooy euh, Lansane 2 Jokkel Lansane 2 ñu ngi damante loxo ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar combat bu méttee gi nii ah ndeysaan mi ngi may mi ngi may ah, diggante Robert ak Pape Diop fii la woon ci stade bi ah a euh, sànniwaat na Lang Sané Jokkel mel ne dañu tolloo doole nag ñoom ñaar combat bi yàgg na trop ah euh, Lang Sané na Lang Sané yoru na jël na ko yoruwaat na mais góolu nañ ko a ah, bi banan dafa yoru ñu góolu ko tab na ko ëñ na ko ëñaat na ko takk na ko takk na ko takk na ko takk na ko takk na ko ëñ na mbañ witti na ko mbañ Ah, rasu laalaaj Birame Ndiaye ne woon mbër bu mënee song mën a rasu day daal di assuré. diggante Langsane ak Jokkel ah ñu ngi dóorante ñoxo mi ngi koy dóor ci suuf ah! ah. ah witti na ko bañ na ah ah bul ah jëlaam na ah, ah ah lu lu arbitre yi wax arbitre Jokkel Jokkel daan na ki nga xam ne mooy Langsane numéro 2. Jokal daan na Lan Sané numéro 2 maa ngi ñëw. waaw bëre bi gis nga war a pet bëre nañ lu bëre nañ lu métti lu yàgg champion la ndaanaan la xam nga ko maa ngi koy gis te dañ ma doon wax ne day défendre looloo tax ma bëre nii topp samay conseil coach samay ñoo ma ne bëre nii maa ngi gërëm waa Fatick nag di gërëm waa Kër Massar di gërëm di gërëm waa 22 dafa daanu barki alxuraan billaay dafa daanu. waaye dafa daan dama ko wéyale lii la samba lii. bilaay walaay biir la biir la ni woor na yàlla.